Euh, leneen nag euh, muy euh, waa ji di Amadou Ba bokk Pastef vendredi Ndoumbelane dalal ko ak Nene Aïcha ñu seetlu ne nag ba mbir yeey waaj jeex de police daal di ko fay fekk daal di koy jël yóbbu sans pour autant ñu expliquer leen raison yi tax ñu jàpp ko ñu dem xool yi Nene Aïcha ak Serigne Saliou li ñuy wax ci boobule arrestation tellu si waat Alors juste après cela bi ñu génnee di tàggatoo euh, on a vu quand même que euh, devant les locaux de Sen TV une voiture blanche benn euh, L200 taxaw on nous signale que section de recherche de la gendarmerie de Colobane la donc dañoo ñëwoon interpeller kii di Amadou Ba Amadou Ba nekkoon suñu invité ci Noumbelane vous l'avez remarqué donc ñu ñëw arrêté ko donc on l'a interpellé juste devant il a demandé à joindre ses avocats jéem na leen jot à joindre également sa famille mais après euh, dañ ko jël euh, yóbbu ko donc loolu tax ñu reprendre euh, justement l'antenne pour essayer de comprendre Serigne Saliou ce qui s'est passé essayer aussi de dénoncer li jot a xew parce que toog ci plateau quand même tenir ay kàddu on ne sait pas encore lan moo tax ñu ñu ñu ñu jël ko mais dañoo njort rek ne que peut-être am na yenn kàddu yu mu yu mu jot a def ci émission bi xëy na looloo tax mais xamuñu exactement ce qui se que laaj nañ agent yi mais ñoom nee nañ dañoo recevoir juste ñu ñëw euh, jël si ko. Mhm. c'est vrai donc ñoom ils sont dans leur rôle. ils ont une hiérarchie. donc euh, ils sont en train d'exécuter les ordres. ñun pour l'instant mënuñu wax la raison pour laquelle Amadou Ba quand même a été interpellé devant les locaux de la CNTV. Mhm. parce que amaguñ ci fi ne d'autant plus que ñoom aussi bi ñu ñëw waxuñu ñu ne lii moo tax ñu jël ko. Mhm. mais que surtout je ne pense pas que ça soit vraiment euh, que ça soit au niveau de l'émission mm. ça peut être autre chose boo xamante ne nii len leneen la woon ñu xam ne actuellement mi ngi seen TV ñu ñëw jël si ko fi mais voilà mi ngi noonu merci beaucoup Modou Diouf euh, Alaaji déglu nga euh, li nga xamante ne ni euh, ñaari journaliste yooyu wax nañ ko ci arrestation ki nga xamante ne ni moo di Amadou baax waaye nag bi ñu koy arrêté ñoom xamuñu woon motif bi lan la mais tey bi ñu xëyee gis nañ ni selon avocat bi di Ciré Clédor lii ñoom nee nañ. diffusion wu rapport médical bi nga xamante ne nii euh, doon nañ ko wax ba procureur ne woon daf si def enquête moom la diffuser moo tax euh, ñu jàpp amatu Ba. moom la diffuser Amadou Ba moo ko diffuser. loolu nee nañ la xëy ne mooy euh, le ñu déféré ko. Ah, ko diffuser. ay loolu de wax. loolu loolu la avocat bi wax. Ah, waaw ah, na moom moo ko divisé. Ah, fu mu jaar ba yegg si ci moom ci loxo. Amadou loolooy bi ñu waxee ne. kan moo ko ba noppi est-ce que du dafa toog si plateau bi peut bind kan moo bind. n'est-ce dañ ne bi pénitentiaire ñoo bind ah. waaw yónnee ko ñoom ñoo bind jox ko. ministère ministère. diggante Ba nekk moom. Pastef. waaw fan la Amadou Ba nekk laa kañ boo ci kii bi rapport bi. ah, ah na waar comme que loolu lañ wax ñoom dinañ déggaat encore. Mhm. kii bi comme que yëkkati nañ ne lii la bon parfois li may euh, bañ rek. Mhm. mooy pareen saay di nga gis ñu téye nit euh, mais la plupart pareen saay bi man damay wax pareen saay ñiy enquête mhm. est sax dañuy toog rek. après di vérifier groupe WhatsApp yi euh, xool seen réaction. beneen mhm. saa yi nga dégg ñu jàpp nit ñu ne xamaguñ lu ñu ko jàppee mais ci saa si ñoom groupe WhatsApp yi ñoom ñu ngi vocal naan est-ce que du lii kii naan est-ce que du lee kii naan est du lii ku ne di partagé te li ngay partagé noonu euh, mën ngaa dem sax ba dugal nit ki nga xamante ni kii yow euh, téye nañ ko te waxaguñ la buñ la waxagul moom. ñii li nga xam ne moom lañ wax nii xam nga ñoom dañ wax ne ñoom jàpp ñu ni amul benn yoon ci émission bi li nga xam ne moom moo war a tax ñu téye ko ñoom loolu mooy li nga xamante ne bii moom moom la ñu wax maanaam yow yemal rek ci li nga xam mais bul naan est-ce que est-ce que est-ce que parce que est-ce que yooyu da ngay gis ay gars di dem di télécharger ay vidéo est du li mu waxoon fii est-ce que du li mu waxoon fële la plupart ñooñu mën nañuy gën a dugal nit yi alaaji même su fekkee diffusion wu rapport bi la euh, affaire yi xëyul xëy rek tàbbi ci ay loxoom. waaw loolu moom mooy li nga xamante ni moom tax ma wax la ci njalbeen gi hmm. ne la fu mu jaar ba yegg si ci moom. fan la jaar bu fekkente ni bii division rapport bi la hmm. euh, fan la jaar parce que bu fekkee ni kii mooy bind di ko jox kële am na fu yëf yi di jaar te diggante bi man gisuma ci fu ci Amadou Ba war a wëndeeloo hmm. Amadou Ba nag depuis quelque temps dafa nekk koo xam ni mi ngi au sommet. ci li nga xamante ni bi mooy mbir yi gis nañ ni booy patriote yi genn wàll gi léegi ñëpp daanaka dañ koy diglu di ko suivre bu baax a baax mu leen di leeralal mbir yu bari est-ce que du lien boobu nga xamante ni moom la ñu bëgg a dagg pour léegi communication bi nga xamante ni bi moom la kii woon parce que parensaay mën nañu xool ne bon kii est-ce que nekkul ni moom moo yore communication part bi ci jamono juñ toll nii parce que ni ko xale yi di dégloo moom wax dëgg fa yàlla c'est extraordinaire. réew mu waaw est-ce que jaadu na nga ni diw dafay communiquer. waaw ah, mais xam nga xam nga fi mu toll nii dem jàpp ji ko seen TV bii euh, fekk bàyyi ko mu def émission ba pare ñu jàpp ko loolu it communication la pour ñu wax ni ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci télé yeeg yooyu seen débat yi moytu leen wax yi de <laughs> attention gis ngeen de ah nii loolu mooy li nga xamante ni mooy li parce que loolu jaru ko woon parce que Amadou Ba boo ko convoqué mu ñëw. amadu Ba nit la koo xamante ni bi ku respecte wàllu yoon la. donc soxla wut dem di ko. jëli ji nii quoi. yooyu mooy yi nga xamante ni bi tey maanaam ki koy def man jàpp naa ni yemut ci amadu Ba rek mais aussi tamit les autres. Euh, li wa li dani doon way dani doon wax ci xiiram bi papa ne waa bi mu nekkee fii papa ji. Eh, daal di dem bitim réew def juróomi at yónneewut deful dara paa bi daal di koy bindalu lettre dessin ci ak xiir ne ko hmm, hmm, hmm, xam nga léegi waa ji yónnee ci saa si la waa ji yónnee loolu rek la bind ci lettre bi daal di koy dessin xiir gi léegi est du tamit lii mooy Amadou Ba lim ñu li nga xam ne moom lañ ko téye nii. mais dafa mel ni dañ ko jagleel pàcc parce que am na ñeneen ñu fare feneen bu ñu toogee ci. télé yi du fare xam nga loolu moom di ko di ko souligner waat soxlawu ko xam nga tey. am na yoo xamante ni soxlawut di souligner nit ñi moom li xew ci penc mi nit ñi gis nañ ko soxlawut sax di souligner parce que loolu moom. Hmm. am na loo xamante ni bi moom nëbbatu amatu ci. làqatu amatu ci dara amatu ci. Hmm. les autres am nañ sañ-sañu toog ci plateau waxee nu leen neex. maanaam am na moo yoo xam ni sax mën nañ koo wax mais dara du leen ci fekk mm-hmm. tey jii mënoon nañu def plateau saaga la doo ci mën dara donc yooyu moom gis nañ ko fi mm-hmm. Amadou Ba wax dëgg fa yàlla lu ko nit mën a waxal xam ni ay waxam ànd naak yar ak i teggin waaw tey ànd naak xam-xam mm-hmm. xam-xam mag léegi pareen saay am na kii yoo xam ne boo amee xam-xam yooyu dëli la yenn xam-xam yi waaw parce waroo am yenn xam-xam yi ak gëstu yeeg yenn leeral yi yooyu c'est dangereux xam-xam. <laughs> ah bu ñu demee ba loolu nekk lu dangereux nag ah. alaaji nag réew mi war na nañu xoolaat bu baax a baax en tout cas c'est très compliqué espérons que nag euh, dinañ ko bàyyiwaat mu delluwaat njabootam ak képp koo xam ne rek détenu politique nga nga nekk ci kaso yi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax te leen di bàyyi xel.